bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sunu borom di wax bismillahi irrahmani irrahim di sant yàlla mi borom mbindeef yi di julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci yàlla yónni ci mbindeef yi di ñaan julli googu ak sëlmal googu law ba ci ay ñoñam ak saabaam mboolem seen ginnaaw loolu maa ngi nuyu waa daara ji yëpp nuyób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jàmmi suñ borom ak yërmaaneem ak barkeem yàlla nekk ci yéen ak ci nun noo ngi am mbégte dellusiwaat ak yéen ci sunu silsila bi ñu nekk te di ci waxtaane al wirdul maxuus min allah nga xam ne waxoon nañ ne danañ ko waxtaane te jël ci sunu temps tey nag mooy sunu juróomeelu jataay ñëwoon nañ ci muxaddama bi ñëwoon ci lan mooy wird ñëwoon ci awraat yi sëñ Tuubaa jaar te nekkoon ci wirdu xaadir kon foofu rek la ñuy sof ci sunu juróomeelu jotaay bi xam ngeen ne waxoon naa ne sëriñ bi wirdu xaadir la njëkk a jël jëlee ko ci baayam Mamour Anta Sali loolu sax danaa ci ñëw jëlee gim jëlee wirdu ci Mamour Anta Sali moo tax bokk na ci wala lenn la ci tax sëñ bi di wax ne Mamour Anta Sali sëriñ sëriñam la di tax maan yaqoolu ibnu seyxi wala xaal ibnu seyxi yi ndax jël gi mu jël la wirdu ma wirdu xaadir ci moom waxoon naa ne Cheikh Mahmoud Ansali mi ngi ko njëkk a jële ci Cheikh Sidi Daara ginnaaw ba jëlewaat na ko ci Samba Tukulóor Ka ginnaaw ba jëlewaat na ko ci Cerno Ibrahima waaye ñoom ñëpp ñu ngi ko jëlee ci ñoom ñett yooyu ñëpp ñu ngi ko jëlee ci Cheikh Sidi mu mag ba ginnaaw gi sëñ bi jëlee na wirdu xaadir ci alxaaji Ousmane Camara ñu gën koo xam ci alxaaji As Camara moom itam ci Cheikh Sidiya la ko jëlee wax naa tamit ginnaaw bi sëñ bi demal la boppam ci àllu Cheikh Sidiya fekk fa Cheikh Sidiya mu mag ma fekk fa premier xalifa am génn àddina muy Seydou Mahmoud waaye mu jëlee ko ci doomam jooju wala sa tub Cheikh Sidiya bu mag boobu muy baaba Cheikh Sidiya foofu la wooyee as silsilatul xaadiriya Cheikh Sidiya mii nga xam ne ci moom la sëñ bi jëlee wirdu xaadir ci version bii te demoon gànnaar fekk ko foofu te wooyee fa silsil xaadir moom itam sëñ bi li mu wax ci moom ak li mu bind ci moom incha allah danañ ci ñëw ak ni ko sëñ bi jàppoon ak sëriñam ci ak njëlbéenam waaye ñëw naa tamit ci danaa ñëw tamit ci sëriñ bi ginnaaw étape yi moom itam ni mu jëlee wirdu bi directement ci cheikh abdul xaadir jaylaani moom lañ ñëwoon ci jotaay bi weef waaye tey nag dañuy ñëw ci beneen anam mooy sëñ bi ginnaaw bi mu jëlee wirdu xaadir ci ñii ñëpp li ñuy wax suñ borom daa rëcc ci wirdu yi mu yoroon yëpp nangu ci moom wirdu yi mu yoroon yëpp wirdu xaadir ak wirdu tijaan ak wirdu saasiliya loolu buñ demee ci irwaaw nadim danañ ca fekk Cheikh Mouhamad Lam Jaw Dagana di ko wax ci page 165 ak page 167 ci Irwa an-Nadim mu ne annahu jaa sayyidul amin fil bahri wa salaba minhu kulla ma kaana min annaasi hatta lam yabqa maahu shay'un summa axtaahu al-xaadiriya nee na as sayyidul amin te mooy Jibril dafa dikkal Sëñ Tuubaa ci géej gi nangu rikki mboolem li sëñ bi mos a jëlee ci nit rek jibril jëlee ko ci moom ba sëñ tubaat ne tuut di setul dara mooy xattaalam yëpp commencé di setul dara jibril daal di koy jox nag wirdul xaadir kon sëñ bi amaat na wirdul xaadir ci silsila boo xam da koo jëlee ci jibril boo demee ci paas 167 da nga ko fekk mu ne fa awwalu ma axasa annaas min al awraadi tariqatu alxaadiriya wa baxdaha at tariqatu saasiliya wa baxdaha at tariqatu alxaadiriya sëñ bi wird yi mu njëkk a jël mooy alxaadir ginnaaw ko saasiliya ginnaaw ko tijaaniya wirdul xaadir nag faqat amala bihi muddatan tawilan sëñ bi jëfee na ko diir bu yàgg moom wirdul xaadir wa kaana yatlubu fihi al isna min kulli man yatlubuhu muqaddaman sëñ bi daana ci laaj ndigal ci képp koo xam ne dalaa dalaa jàpp ne muqaddam nga si nga xam ne jox nañ la permission may nañ la nga mën a joxe wirdu xaadir xatta axasuhu min rijalin mutaadidin ba jëlee ko ci ay nit yu limu ginnaaw loolu nag mu feeñal ko ne mbooleem ñu ngi ko daan jëlee ci ñoom lay soo bi muxaddimiina nekku ci woon muxaddam ca loola ba demee ci mi nen sax téere sama turandoo lay soo bi mu xaqiqiina xam naa danañ ci ñëwaat sax lay soo bi muxaddimiina gi ak li sëñ Basiir wax ñi bi mu xaqiqiina nee nag bi loolu amee fa talabtu min allahi tabaraka wa taala an yahabali fihi maa laa yakun mahu maahu taxyirun wala tazattabun bi dal amee nag ci laa sàkkoo ci sunu borom mu tedd mu kawe ma mu may ma ci wirdu xaadir loo xam ne nii déng-déng ak benn ngëlëm ti dootu ci nekk yàlla nag nangul ñaanam moo tax ma ne u baxdama gayyabani ila albahri waxdi waadahu jaani assaydu al amin alayhi salaam wa salaba minni kullama axasa kullama axastuhu an innaas wala min annaas xatta lam yabqa li shay'un summa axtaani l wird al xadriya bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ginnaaw bi ma demee ci géej gi bi ma fàddoo ci géej gi man ak yàlla képp rek ci la ma jibril dikkalee alayhi salaam rik nangu mboolem lu ma jëloon ci nit ci nit ñi ba desewuma dara mu soog maa jox wirdul xaadir waaye nag bi waasitati rasulillahi sallallahu ci kiir kiraanag yonente bi sallallahu alayhi wa sallama kon sëriñ bi am na wirdul xaadir jëlee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yonente bi ko joxoon si Abdou Xaadir Jilaani joxaat ko sëriñ Tuubaa bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Cheikh Mouhamadou Dagana nee na boo seetantale lii ak li ñëw ci ginnaaw da nga gis ne xew-xew bi amoon ci géej gi te jibril rikki ci sëñ Tuubaa mboolem li mu yoroon lu dul lu jugoon ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw gi mu delloo ko ko loolu dafay tekki ne moom sëñ Tuubaa mooy seen kutaay mooy seen naayib mooy seen représentant mooy naayibu yonte bi mooy naayibu tarixa yooyu wird yooyu ko sun borom dellowaatoon ginnaaw bi mu ko rikkee ci moom muy xaadiriya ak saasaliya ak tijaaniya moom mooy seen naayib fii awraadihim ci seen wird yooyu mu teg ci ne fa huwa al muqaddamu al mutlaq allazi laa ajra alayhi fi wirdin ma mooy muqaddam bi nga xam ne dañ ko itlaax mu sañ a joxe wird yëpp amul benn wird bu ñu koy tere mu joxe ko lii mooy tax nga gisoon sëñ Tuubaa di joxe wirdu xaadir di joxe wirdu tijaan di joxe wirdu saasaliya ndax mooy seen kuutaay ñoom ndax da see àgg ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko kon yaakaar naa loola leer na bu ko defee nag sama sëriñ sama turandoo ak Cheikh Mouhamadul Basir radiyallahu anhu wax wax gi mu wax ne kuusifa lahu annahum laysoo bi muhaqqiqiina baxdu dafa wax ne sëriñ bi ginnaaw bi mu jëlee wirdu bi te mu dem ba xam ne ñi mu ko jëloon ci ñoom lay soo bi mu xaq bi mu xaq xii na nee na lay soo mu xaq xii na boobu ma wax loolu sëñ bi waxa sëñ Basiir nee na bu mu la yóbbu nag ci nga xeeb ñoom jëlewoon wirdu ci ñoom ndax fa inal umuura nisbiya mbir mi dafa relatif ndax taxqiiq di sëñ Tuubaa di wax foofu ba mu toll ak état ba mu tolloon bokkut ak taxqiiqu keneen li anna xasanat al abraar sayyiatul muqarrabin da ngay dem àgg foo xam ne nii ñu baax ñi ñu jub ñi seen jëf ju baax seen jëf ju ñuy wooyee jëf ju baax ñu jege yàlla dëgg-dëgg loolu ñaaw téef la ci ñoom kon dalaa bëgg wax ne wax gi mu wax fii foofu lay lay dugg ndax fa taxqiiqu indal kumuli laa yetimu illa bi taxaqquq fa yasmulu an wax li yaqin salaat taxqiiq nag ca ñu mat ña ah du mat nag lu dul nga def taxqiiq nga xam ne dafay ëmb mboolem an waxul yaqin salaasa te mooy ilmul yaqin aynul yaqin xaqul yaqin kon sëñ bi loolu la bëgg a wax loolu la bëgg a wax te mooy jëliwuñ ci yonte bi sallaxama directement kon lii borom irwa on nadim indi woon fii dafa mel ni boo demee ci majmoox bi nga xam ne mooy al majmooxatul al mustamila ala ajwibati wa wasaaya cheikh al xadim wa fataawi alayhi ridwanullahi da nga ko fekk nañ ko indiwaat ndax li ne ci majmooxa bi mooy fa awalu ma axasa naasim min al awraadi at tariqatu al xaadiriya kii way way yii li mu njëkk a jël ci awraadu tarixa yi mooy tarixatu taaji ci xaadiriya tarixa yi ci topp danañ ci ñëwaat insha allah ba agsi ci mu jëfandikoo irdul xaadir diir bu yàgg ba àgg ci fi mu waxee ne ma sàkku ci yàlla mu may ma ci irdul xaadir loo xam ni benn gëlëmte benn deng-deng du ko ci am waaye ginnaaw bi ma demee ci géej gi ñu exilé ma ci géej gi ci la jibril ñëwee nangu mboolem li ma yoroon jële ko ci nit ñi ba desetuma dara mu jox ma irdul xaadir bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama noonu mu jëlee woon ci moom wirdu xaadir noonu la jëlee woon ci wirdu wirdu saasel yi ak tari ak tijaan yi ginnaaw loolu bu mu ko bu mu ko delloo wirdu xaadir ginnaaw loolu delloo na ko wirdu saasel yi ak wirdu tijaan yi moo tax ma ne summa axtaanil xaadiriya bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama jibril jox ma al joxaat ma wirdu xaadir waaye ci intermédiaire u yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka nga xam ne kon bimu nangoo lépp ci moom da koo joxaat wirdu xaadir ci waasitatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon foofu silsilaam silsilaam sëñ bi dafay gàtt lool ndax da koy jële ci yonent bi mu jëlee ko ci jibril mu jëlee ko ci boromam noonu tamit la ko joxaate saasiliya ak tijaaniya waaye bi isnin minal masayiqi siraafi salaasati kama taxaddama dikrum alayhim ridwanullahi taala sëñ bi nee na loolu yent bi ñu ko defee ci ndigalu ñetti sëriñ yooyu muy Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mi nga xam ne mooy borom tariqatul xaadiriya mooy borom wird bi ak Abul Hasan Assaasili mi nga xam ne mooy borom wirdu saasili ak Cheikh Ahmadou Tidiane mi nga xam ne mooy borom mooy wirdu mooy borom wirdu Tidiane lii ci ndigalu ñooñu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee moo tax mooy moo nekkoon seen naayib ñoom ñooñu moo taxoon mu sañ a joxe wirdu yëpp soo gisee Sëñ Tuubaa daan joxe wirdu xaadir wirdu Tidiane wi saasili da caa amoon ndigal ñoom ñooñu kenn ku ci ne ci intermédiaire yonent bi jox ko yoon wi jox ko wirdu woowu jox ko tamit mu sañ koo joxe li ma wax ko dem ci xikam paas ku dem ci ci dem ci diwaan mañ ma al mustamila da nga ko fekk waaye ku dem sax ci xikam xikama bi si yëpp laxat dajal woon ci paas cent quarante cinq da nga ko fekk lu dëgëral lii loo xam ne moog lii sorewuñ te loolu mooy lan taalimun fal yaalam wal yantabi jamii al aalamiina mu ne mboolem mbindeef yi nañ xam nañ yeewu ci ne ala anna allaha tabaraka wa taala aata abdahu wa xalilahu xabibahu wa xadima rasulihi wa xalilihi wa xabibihi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka mboolem nit ñëpp nañu xam nañu yëg ne yàlla kat mu tedd mu kawe ma jox na jaamam bi xaritam bi soppeem ba kay liggéey kay liggéeykatu yonent bi ci dappetu di xaritab yonent bi di soppab yonent bi yàlla na yàlla dolli xéewal ak teraanga yàlla mu kawe moomu yàlla na ko dolli ci yonent bi ak ñu ñam ak saabaam te sëlmal ci moom te barkel ci moom lan la ko jox axtaa axtaa xaliloo lan yàlla lan la jox xaritam boobu yàlla lan la jox soppem boobu yàlla lan la jox jaamam boobu yàlla lan la jox liggéey liggéeyaakatub yonent boobu yàlla yàlla lan la jox xaritab yonent boobu yàlla yàlla lan la jox soppab yonent boobu mu ne al wird al xaadiriya ah wirdul xaadir rek la suñu borom jox sëñ Tuubaa wala wirdu saasiliya ak wirdu saasiliya wala wirdu tijaaniya ak wirdu tijaan ba baada al quraani wala xadis ginnaaw bi mu ko joxee alquran ak xadis wa jamii ulum naafia ginnaaw bi mu ko joxee tamit mbooleem xam-xam yu am njariñ taalluman wa taaliman allahu akbar kon bu la neexee nga ne sëñ Tuubaa am na wirdul xaadir ci silsila boo xam ni da koo jële ci boromam directement am na ko jële ko ci baayam wirdul xaadir am na ko jëlee ko ci askamara am na ko jëlee ko ci Cheikh Sidiya Baba danaa ñëw wax gam ko wax ne jël na ko Cheikh Sidiya lu bokkut ak li nekk ci silsilatul qaadiriya am na ko jëlee ko ci Cheikh Abdou Khadir Jeylaani am na ko jëlee ko ci waasitu rasulullahi mu jaare ci Jibril jóge ci boromam jaare ci Jibril ñëw ci moom waaye am na ko nag directement nag mu jóge ci boromam waaye nag fii nag fan la bi waasitati arbaabil awraadi salaasati alayhim am na ko bi waasitati arbaabil awraadi salaasa ci kirkiraano ci intermédiaire u borom ñetti wirdu yii yàlla ngërëmal yàlla nekk ci ñoom nga xam ne loolu ci intermédiaire u Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ak borom wirdu yi ci des kon sëñ bi am na wirdul xaadir mu jóge ci boromam directement waaye nag bi waasiti al cheikhu abdul xaadir jaylaani wa bi waasitati al muallafina alayhim ridwaanu wa rahmatu mboolem xam-xam yi am njariñ yëpp it sëriñ bi mi ngi ko amee ci waasitu ñe ñe taalifal loola ci mbo ci waa waasitu ñe taalifan téere boobu téere yooyu xam-xam yi am njariñ yooyu yàlla nañu ngërëmal suñu borom ak yërmaandeem nekk ci ñoom wa asnilahu fi ixtaay jamihil awraad yi sun boroom moo jox ndigal sëñ Tuubaa ci mu joxe ci muy joxe mboolem awraad yi kon sëñ bi joxe gëm daan joxe wirdul xaadir yi daa am ndigal lu jóge ci sun boroom ñë ndigalu sun boroom la ci am bi waasiti cheikh al cheikh Abdul Xaadir Jilaani wa bi waasiti rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama xanaa li leer na de wa addina lahu fi ixtaai jamiil awraad yi suñ borom moo joxe ndigal sëñ Tuubaa jox ko ndigal ci muy joxe mboolem awraad yi moo tax ngay fekk ci yoonu murit kuy wirdu wirdu maaxuus di wirdu wirdu tijaan di wirdu wirdu xaadir di wirdu wirdu azadaliya parce que sëñ Tuubaa la suñ borom jox ndigal mu joxe mboolem awraad yi te li ma wax sëñ Tuubaa ko bind ko dem ci xikma bi Cheikh Abdoul Ahad dajale woon page 145 da nga ko fa fekk moo tax wird yëpp sëñ Tuubaa daan ko jox mooy mooy almuqaddamul mutlaq wa fii taalimi jami jamihi tawaalif suñ borom jox ko ndigal ci mu jàngale mboolem taalif yëpp moo tax sëñ Tuubaa amul frontière wutalul taalim ay frontière nee na ay taalibam awraadu ak axsaabu gaa yu baax yi lu ngeen ci lu ngeen ci daje moom loolu am ngeen ci ndigal ci jëfandikoo ko moo tax dañoo ubbeeku waaw waaw man xam naa personnellement ñoo xam ne dañuy wirdu wirdu xaadir di wirdu wirdu saasili di wirdu wirdu tijaan ba noppi boole xoog boole xoog ay nusux yu bari ci wirdul maxuus te bu dee wirdu tijaan wi mi ngi ci amee ndigal ci ci Sëriñ Tuubaa loolu bu ñu ñëw di waxtaanee Sëriñ Tuubaa ak wirdu tijaan danañ ko fa gën a leeral gis nga si Sëriñ Tuubaa demee ci wirdul xaadir ba jëlee ko ci Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani directement ba jëlee ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi waasiti jëlee ko ci Jibril mu jëlee ko ci borom bi waasiti Jibril ak jëlee ko ci borom directement bi waasiti ak Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani suñ borom jox ko ndigal mu joxe wirdu yëpp wirdul xaadir ci biir loolu la bokk gis nga loolu ci ngay soog a déggee wax gi sëñ Tuubaa wax ne lii xutta maa faaqa bihi l jilaani alayhi ridwaanu alladi alaani ñu bari nag dañu koy firee baaxul yàlla jox nga ma lu kawe la nga joxoon si Abdou Khadir Jilaani loolu lañu koy firee waaye du noonu de yow suñu borom jox nga ma womban nga jox nga ma la nga xamee ne ca la Cheikh Abdou Khadir Jilaani kawe woon yàlla na ngërëmal yàlla yàlla bi nga xam ne moom a kaweel yàlla nekk ci moom la Cheikh Abdou Khadir Jilaani yoroon ba tax mu kawe mooy lan mooy al wirdul xaadiriya sun borom ni mu ko joxoon Cheikh Abdou Khadir Jilaani noonu la ko joxwaate sëñ Tuubaa fii bi waasiti ak Cheikh Abdou Khadir Jilaani ba noppi jox ko ndigal mu di ko jëfandikoo loolu mooy lii xutta maa faaqa bihi al-Jilaani alayhi ridwaanu alladi alaani kon mbokk yi naa bañ a guddal tayam fii bu subaa nag ba ñëw ak yow pourquoi sëñ Tuubaa di tudd Cheikh Mamour Anta naan mooy sama sëriñ ak la mu wax ci Cheikh ca ca la mu wax ca Cheikh Sidiya Baba ak la mu wax ci la mu wax ci Cheikh Abdou Khadir Jilaani tagg yam leen tagg tagg yu rafet ya ak qualité yam leen jox loolu danañ ci ñëw ngir tëj nag sëñ Tuubaa ak Abdou Khadir wasalaamu aleykum